national lañ daal di dalalee ministre bi lee ca noonu le président gouvernement scolaire bi daal di liire discours am yow monsieur le ministre sa école suñu école ndax bis bi tey yoon la ñu daal lay jagleel lii nga xam ne kat mooy akub jaajëfal ci ñëw bi nga ñëw fii ndax loolee dafa fësal suñu mbégte lool. li ni mel nag doon accueil bi nga xamante ne nii moom lañ daal di jagleel ministre bii di Moustapha Guirassy moom mii nga xamante ni nii dafa daal di dellusiwaat ci école bi nga xam ni fii la daal di jàngee te noonee la daal di dajeeg daam bii nga xamante ni nii moom moo ko yoroon ca classe CM2. tey jii am na programme bu ñu am école yu bëri la ñu nar a dem visiter fii laa ko dooree dooree ko fii nag dafa am sens pour man d'abord Médina la euh, ñaareel bi euh, su ma ñëwee fii presque dinaa gis leneen loo xam ni presque. li nekk ci yeneen école yi. mu daal di dugg ci classe yëpp ceytu anam bi nga xamante ni noonu la ndaw yi di jàngee ci yooyu la école li mu jàpp mooy ndaw ñi dañoo war di xoolaat bu baax a baax ci cadre bi nga xamante ni nii fa lañ leen di def ngir rek ñu mën di jàng ak xel bu dal. éducation nag dafa nekk loo xam ne tey jii dafa nekk au cœur de transformation bi ñu bëgg kuy denc xaalis bul denc torop ku bëgg ëllëg noppale ko. xalaatal ni ci sa doom soo investir rek ëllëg di nga noppale ko. Bamba Fall nekk meeru commune Médina moom bi mu jëlee kàddu gi dellu si na bu baax a baax ci lan mooy taxawaayu maire ngir rek daal di gunge nguur gi ci liggéeyam. il faut ñu leen di leeral bu ñu ma gisee ci wetam dañu naan lu mu fiy def déedéet may xamal ñi xamul ni bu ñu dee politique ku ne mën nga jël sa yoon mais bu état wootee yoon amatul de benn yoon la ñun maire yi de membrement état la ñu ñun maire fonctionnaire état kon bu état taxawee dañuy fàtte sunu bopp ànd ak état ndax réew mu dëgër la ñu soxla. bi mu jógee